fas yéene waxtaanee benn école bu tudd école unité xam ne dañ ko sanc si atum 1981 fu mu toll nii nag école bi vraiment dafa màgget jar na defaraat loolu lañ fas yéene waxtaanee. ci yow ci yow ci yow la ci wàllu éducation bi. waaw euh, école boobu comme ni ma ko waxee dañ ko sanc si atum 1981 école bi nag am na ay ñoo xam ne parcelle tey am na euh, foofu la ñuy jaar ba nekk tey li ñu nekk. léegi nag euh, tey nag vraiment école bi moom nu mu mel état bi mu mel jar naa defaraat léegi nag euh, galaa loolu ñu seetaan euh, élément bi ñu déglu réaction ancien pensionnaire école yi ak directeur bi mu wax ñu tuuti situation école bi du sax école daanaka ngunu ginaar la gën a jege ka école mënuñu sax am ay ay kaddu pour mën koo wax parce que liñ fi gis dafa yéeme trop école boo xamante ne classe yaa ngi daanu école boo xamante ne ay bâche la ñu teg pour xale yi di ci jàng ak tàngaay bi fi am école boo xamante ne daana lépp li nga xamante ne soxla nañ ko pour jàng amu fi gis na lim fi nekk ay ay soxna ñooy obligé di yendu ci naaj wi ay soxla ñooy obligé di nekk xale yi ci condition yoo xamante ne kenn xamul naka nga ko mën a tuddee. depuis le mois d'octobre ba léegi conditions yi ça n'avance pas. une facture l'école ne peut pas parce que lu wax ne léegi inscription amatul l'inspecteur est au n'est-ce pas ils m'ont bon am na ñu nekk en formation suñu génnee priorité mooy suñu école mais malheureusement ñu génnoon ñëpp on les a ventilés ailleurs CM1 mais c'est après bon ñu indi ma benn enseignant euh, CM Cambérène la jógee def na fi un mois et quelque ñu jëlaat ko yóbbu ko IA classe bi encore vaquée école bi amul sécurité dégg naa fu mu commencé di ngoon ay bandi ñoo fi ñëw ñii di tox yàmba ñii di def leen neex ba pare sax di dem bay buntu xataal jàngalekat yi jigéen yi fi nekk donc loolu moo tax tey jii dañ fi ñëw pour di woo askan wi di woo autorité yi maanaam ñi yore mairie bi di woo ministre de l'éducation pour que ñu gestu école bi amaama yaa ngi gis gis nga situation école bi nu mu mel donc euh, am ay abri provisoire ku ko wax nag ay bâche la xale yi di jàngi am na ñeenti classe yoo xam ne dañ ko mujjee tëj parce que par mesure sécuritaire dañoo toog benn jour ba su dimanche heureusement que xale yi jàngiwuñu léegi affaire yi di mab euh, ñu euh, ñu toto def loolu euh, sous préfet bi ñëw def constat bi mais malgré tout ak yooyu yëpp ni ñuy installé abri provisoire yi ba léegi difficulté mu ngi persister ci ci école bi ndox xale yi amuñu ndox dañuy dem si kër yi di di dem di uti ji ndox léegi nag euh, euh, imaginel école xale yi amuñu ndox loolu xam nga c'est c'est c'est grave xale yi dañuy génn ci yeneen dem ci kër yi avec toutes les waaw exposition sécurité surtout sax exposition sécurité léegi école bi tamit ngoon ji enseignants yi dañuy am problème parce que day am ay euh, maanaam ñuy tux seen cinébar foofu la ñuy dajaloo loolu daal vraiment moom. daal léegi jaaxal na ma euh, léegi ñi nga xam ñooy defkatu ñaawteef yi ñiy jëfandikoo yenn yi nga xam ne euh, dara baaxu ci ñoom seen lieu de prédilection maintenant c' est l' école les soi-disant école parce que mënu ma ko tuddee école dans la mesure où turu école rek fa nekk dara newu fa ça devient vraiment grave dans la mesure où fi nga xam ne foofu la boo nekk. les enfants fi nga xam ne foofu la xale bi waroon sentir li en sécurité ñu protéger xale yi foofu ne noonu euh, xale yi ñu ngi koy xëccoo que ñi nga xam ñooy euh, tuxkatu yàmbaay yeeg euh, nankatu yenn yi ni parce que loolu moom dafa am léegi si a un réel problème de de sécurité dans dans les écoles même bu fekk ne sax avec euh, l'acte am na yoo xam ne mi c'est la à la mairie de prendre en charge euh, certaines choses par exemple femme de ménage paiement gardien su fi mairie bu fekk ni nag c'est à bu dee par pour les lycées là c'est en charge avec les les les les gens les conseils départementaux mais mais malgré tout rares rares sont les mairies parfois qui prennent en charge ces questions mooy recruter benn benn benn benn gardien wala femme de ménage parfois xale yi da ngay gis école yi maîtresse yi ñooy organiser ak xale yi. bu bu bu amee pause ñu ñu balayé classe yi. en général groupe